à la loi d'amnistie en fait on fait le link entre la loi d'amnistie et des supposées discussions yu am diggante Ousmane Sonko Macky Sall par euh, par intermédiaire mhm. c'est trois choses la loi d'amnistie dont parle les supposées discussions ak sa dialogue là c'est trois choses liées c'est-à-dire que benn dàqante wu ak morom cest à que Ousmane Sonko a bon dos xam nga tey may mun a nit koo xamante ne Euh, nekkul ci biti c'est-à-dire que mën a waxal boppam mën a défendre boppam c'est-à-dire que dafa yomb nit taxaw di ko teg lu nekk man dégg naa fii un journaliste toog fii di wax non Ousmane Sonko mu ngi waxtaan ak kii waxtaan bi sori na et c'est faux c'est faux c'est pas la vérité c'est-à-dire que Sonko képp ku ko xam xam ne nit ku dal la nit ku am yar la ku mel ni Atepa ak li mu séeq ak moom war na mën a dem seeti ko ku mel ni avocat bi war nañ mën a dem seeti ko ku mel ni responsable parti bi fii nekk war nañ mën dem seeti ko comme ni ñu seetee ñun loolu c'est normal ku ñëw wax ak moom ci dara war na mën a wax. mais mais mais mais mais Fadilou mais il n'a arrêté personne. mais mais mais Fadilou pour aller discuter avec le président Ousmane Sonko. Euh, li muy nekk prison yëpp message bu mu bëgg a jàllale mu ngi koy jàllale. bien sûr c'est son chargé de com parfois qui vient lire un message. oui de Ousmane Sonko. Euh, Pierre Atepa Goudiaby dafa wax dans beaucoup de médias wax RFI carrément euh, joxe la preuve qu'il y a une volonté de se parler. de se retrouver et d'oublier alintin Tine euh, dem Seneweb accordé leen une interview exclusive ne Ousmane Sonko ne li ma bëggoon mooy que Ousmane Sonko et Macky Sall se parlent enfin Ousmane Sonko va être libéré dans les prochains oui, jours oui. Cheikh Yérim tudd turu nit kooku ba tey weddiwul ne euh, Cheikh Diba euh, moo dox diggante bi Ousmane Sonko ak Macky Sall Cheikh Diba il est directeur de la planification c'est un fon c'est un fonctionnaire de un c'est un haut fonctionnaire de l'administration sénégalaise il n'a pas démenti Ousmane Sonko n'a pas démenti. oui merci beaucoup xam nga Ousmane Sonko dina wax à travers euh, sa communication bu ko intéressé est que da nga dégg mu wax ci lii ci dialogue bi est-ce que da nga dégg mu wax ci affaire discussion yi ñëw est-ce que da dégg mu ne am na wala amul. mais est-ce que xam nga bu ko waxul lan lay indi. non non est-ce bu ko waxul lan lay indi un ça créditer la thèse que Macky Sall bi muy reporter élection parce que on le dit que bi muy reporter élection waxtaan consulter na ko ça va créditer la thèse que Ousmane Sonko est d'accord pour le dialogue ça va créditer la thèse que que Ousmane Sonko veut la loi d'amnistie parce que Ousmane ko kenn xamee ko ci ñu koy waxal lu dul dëgg mu noppi. au contraire mu noppi kenn xamee ko ci loolu. xam nga tey. euh, Macky Sall est à l'étroit le président Macky Sall cest que du moom moo ñu dicté naka la ñuy communiquer te Ousmane Sonko est très bon en communication xam ngeen nu muy gérer communication cest à que si laa ne à ce stade là suy wax àdduna bi yëpp di ko déglu cest à que am na lu nekk derrière du kenn mooy taxaw colporter accusation mu génn di wax ñun ñii sax am nañu fiy wax ay si ñun suñu ay conditions de détention yooyu mais ñu génn wedde da ne tekk wala mu nekk si loolu dina ko wax ñëpp xam ku mu fa parce que nekkul nga dialogue du lu bon maanaam discuter ak président Macky Sall bi nga xamante ne moo fi nekk du lu bon dama doon wax raisonné sànq pour e- dafa nekkoon au bout sama raisonnement c'était pour revenir vers ça cest que nit gënuñoo placer ñun pour waxtaan ak président Macky Sall xam nga lan moo tax tey nee la bu ñu doon xeex pour njëkkante place Pastef moo nekk ci kanam tollatuñu foofu fu ñu toll mooy nguur gi ñu nar a jot incha allah ban form lañ ko jot dañuy jot nguur gu mët sëkk wala dañuy jaar si ay transition yoo xamante nit ñi mën nañ fay nekk dàq ko fii ak 5 ba pare indiñ ay jafe-jafe askan bi parce que loxo yi ñu koy teg kenn xamul yan a euh, boo moytul force yu kenn gënuñoo ñun placé nga xamante ne ñooy les principaux challengers du président Macky Sall pour jot nguur gi donc kenn gënuñoo placé pour dem ci euh, ko deful tey wala suñ ko doon def dañuy assumer dañ koy def mais c'est-à-dire defuñu ko et nit mooy génn wax tey Alioune Tine naa émission bi ko laajee ndax dana gisante Ousmane Sonko qu'est-ce qu'il a dit non gisuma Ousmane Sonko mais bi déglu naa tamit RFI bu euh, monsieur Atepa qu'est-ce qu'il a dit non bi ma demee Sonko dafa ne na Macky Sall wane preuve bonne bonne volonté c'est le ah. comment non attends non xaaral ma ñëw rek. <laughs> ça veut dire quoi non non xam nga tey xam nga tey dafa ñëw bëgg a dialoguer par le passé on a di ñett plusieurs fois nga jël nit yu bëri dugal leen kaso qui reviennent à la normale su nekkee bëgg na yow c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas. travailler sous la pression les gens ne viennent pas au dialogue au dialogue ou discuter pourquoi parce qu'il pourquoi parce qu'il nous a mis des astreintes day ñëw bàyyi ñëpp ñu génn et puis après les gens de voir parce que aussi ñun comme li ma la wax y a le Sénégal y a un président sortant boo xamante ne a et sa personne jarul Sénégal di nërmeelu te menace yi mu def c'est à prendre au sérieux pourquoi parce que aujourd'hui moom moo am yenn prérogatives yi donc le Sénégal pour lequel on que du ñun depuis 60 ans les gens se mu ngi nii taxaw et on est à quelques encablures de mën ko def y a le président à côté qui brandit des menaces pourquoi parce qu'il est à l'étroit il est pas content de sa gouvernance et cetera et cetera mais y aussi les Sénégalais qui nous euh, regardent à côté on n'a pas de on n'a pas ce de dire qu'on est brisé avec Macky Sall si on doit le faire mais on doit le faire suivant certaines conditionnalités il faut que cette personne-là montre patte de telles mais mais mais euh, Euh, à chaque fois bu ñu daan jéem a ruumandaat euh, des choses Macky Sall Ousmane Sonko dafa am ñoo xam ne dañ doon da leen di wóor ne dañ doon wax ne fii ñëppay wax ak Macky Sall sauf Ousmane Sonko. Mhm. dans l'espace politique. am na ñu ko daan wax naan homme politique yépp ñooy waxtaan ak Macky Sall ba mu des Ousmane Sonko. Mhm. bu ñu demee ba jëmmi jamono ñu teg loolu yépp sur la table. toute cette couche là sur la table ñoom ñaar ñu ngi waxtaan euh, te am na Pastef ñuy taxaw di naan non au report des des des mhm. élections am na Pastef ñu taxaw ne euh, ils pas euh, pour le dialogue mais bu Ousmane Sonko nee na Macky Sall wane bonne volonté ñu xëy plus de 500 personnes yu ñu jàppoon. qui mhm. croupissait dans les dans les geôles sénégalaises. Mhm. ñu dans les prisons sénégalaises yu ñu jàppoon ñu libéré leen. ensuite ñu xëy euh, ñu président sax ci volonté di naan il faut ñu repre def élection inclusive mhm. euh, libre démocratique et transparente loo xam ne gars yi yàgg nañu ko sàkku mhm. euh, ñoom ils étaient pas ouverts à à à ça ñu dem ba ñu dugal loxo tudd Ousmane Sonko ci loolu yëpp Ousmane Sonko noppi mhm. son silence est lourd son silence est pesant bu fekk te man ci ni ma gisee ni muy defee ça comme Mm-hmm. il ne manque jamais l'occasion il ne rate jamais l'occasion mm-hmm. de repréciser les choses c'est-à-dire aujourd'hui képp ku nekk xeltukat nekk seetlukat mënoo weddi ne waxtaan am na diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko Macky Sall tous les actes qu'il est en train de poser posé wu ko ci maali foro mm-hmm. dafa am fu mu ko teg euh, mais mun na xam nga tey soo bëggee gëm ni président Ousmane Sonko dafa waxtaan am nga droit. mais dafa war a waxtaan sax. non non ñu bëri wa non ñu bëri gëm nañ ko ñu bëri gëmuñu ko loolu c'est selon mais man dama lay wax man li ma xam euh, man présent quelqu'un comme man c'est pas parce que euh, Pierre Atepa Goudiaby wax na ne lii ak lii xew na ko gëm naa ko dialogue baa ngi nii dañoo discuter pour dem dialogue la moo tax on ne pas présent au dialogue pourquoi on dit haut et fort et nous sommes contre cette euh, loi d'amnistie est-ce que di gis kenn suñu mu koy promouvoir est-ce que projet par le passé wala ñu lu ñu bëgg toog nañ fii bañ ko défendre wala bañ cee jël suñu ay responsabilité dama la wax ne waxtaan amul ku ñu gën a pare pour def loolu parce que ñoo nekk foo xamante ne dëgg-dëgg waxtaan bu ne am ak Macky Sall président Macky Sall ñu ñoo ko war a a def c'est-à-dire que président Ousmane Sonko du trahir mukk sénégalais yi en leur montrant une chose boo xamante ne tey nekkul ci moom wala muy wax loo xamante ne suuf yi def lu contraire au contraire il est extrêmement prudent la preuve il y a gis naa Sonko nii na naa gisuñu Ousmane Sonko Ousmane Sonko gis ko jamono yi jafe na yaa ngi dégg muy muy muy la première chose la seconde chose aussi xam nga nit communication yi yàgg nañoo dressé wu si ñun ñëw ne Ousmane Sonko def na def fekk li ñuy wax yëpp amu si notamment kenn si nga si te muy muy muy Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck fan yii passé euh, en dafa na ko ñëw ne non diw moo ñu financé il a fallu ci euh, law oil ci boppam def communiqué ne ñun xamuñ Ousmane Sonko te pourtant da ko bind ak sitam ak réalité bu mu yoroon à mais tey Sénégal yi dépassé nañ kàbb. mais pourquoi le Cheikh Dibala. nga xam ne c'est un haut fonctionnaire. oui et je ne l'ai pas vu politiquement même si c'est un ami de Ousmane Sonko. pourquoi moom génnul mu démentir. mais xam nga Cheikh Dibala ngay wax mais ñun ñi <laughs> pourquoi Ousmane Yara mais da lay leer ne euh, génnul mu démentir. mais mais mun a ñooñu Cheikh Yérim moo si de seen tour ñooñu bu ko neexee moom mun a dem ñooñu mun a dem démentir mais ñun ñi nekkoon ci kaso bi man wala nga jël joomaay wala ñeneen nag xam nga am na ay bonne volonté. yuy ñëw ne la man soo bëggee ma waxal lii Amadou Ba soo bëggee ma waxal lii président Macky Sall man autorité yu mag a mag a mag contacté nañ suma yaay sama yaay bu ma avertir ne ma diw ak diw woote ma woo nañ ma dama ne ko dites-leur que Fadilou n'est demandeur de rien du tout billaahi wallaahi te la laay waxee Fadilou n'est demandeur de rien xam nga man loolu su ma ko mënee c'est-à-dire que Ousmane Sonko mën na lu raw loolu quoi c'est-à-dire que président Macky Sall dem na fi këru jàmbur juste kër gi dañ koy sànc mu dem fekk ko dem na fi jaale ji koo xamante ne moo ko tëj trois ans ci kaso bi su bëggoon gis Ousmane Sonko moom mooy déplacé wu soldat am dem gis ko encore que nekkul lu bon pour le Sénégal parce que politiciens yu am ay projet antagoniste xa yàgg nañoo tase di toog di waxtaan man wax naa ne ñun bu dee waxtaan kenn gi ñoo disposé en tout cas prédisposé pas disposé prédisposé pour mën a waxtaan Macky ndax fi ñu toll ci politique ak li nga xamante ne liggéeyu 60 ans ñu koy liggéey ñu ngi nekk juste aboutissement bi moomuñu léegi pourquoi avoir de complexe de dire que dañuy waxtaan waxtaan mais parce que dañuy waxtaanul moo tax. on n'a pas qui est-ce qui a intérêt jeexal fii qui est-ce qui a avec le président Macky il est dos au il prend seul ses responsables la preuve qu'est-ce qu'il a dit au dialogue ministre am toog na ne ko lii sax laa dem si on nous sommes contre mu ne ko man maay président la République chacun a ses prérogatives te ma lii laay Ousmane Sonko d'accord na ci de te pourtant Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi Bassirou Diomaye suñu candidat mi ngi ci kaso bi ba léegi suñu yenn centaine centaine frère ñu ngi ci kaso bi ba léegi c'est-à-dire amul sens quoi quelque part amul logique ne kii discuté ak moom donc moom moo tax may def loi d'amnistie moo Sonko n'a pas besoin la man preuve charge ñi teg Sonko lañ ma teg te maa ngi nii toog fii nii te loi d'amnistie teguma fi donc Macky Sall su ko ma bëggee génne jaar fii ak fii bu nekkoon discussion maître euh, Moussa Sarr bi ñu ko waxee waxu Diomaye Faye ak pour mu déposer tout ça mais il a pas il a président fi muy jaar ba génn yi dañuy jaar foofu ba génn Diomaye un point c'est tout on n'a pas besoin de discuter pour